dañu fi dajé tay pour waxtan ci euh liñu dégg ne nguur gi fay démarrer travaux BRT muy euh, bus rapide transit yi te dég-dég biñ ci am liñ ci am moy dégganteem rek lañ ci am euh ñu bëggoon euh, fatali ngor gi ak le président de la république ak le ministre Omar Youm mi nga xamné moy ministre des transports né ko BRT dafa fek transport bo xamné ni ñoom ñoo doon doxal transport bi euh, ba BRT bi ñëw léegi nag li nga xam ne nii ñun loolu lañ ci ragal tey di ko lancé mu nekk doléance ci ñun mooy renouvellement bi nga xam ne nii euh, commencé woon nañ ko waxtaanee en 2014 ci wàllu parc taxi yi gouvernement bi continué waat waxtaan woowu ak euh, wàllu renouvellement taxi yi parce que transport de masse naam lu baax ci réew la mais nak capital pour mu am décor bi war pour mu am transport bu am sécurité faw mu am ay taxi yu bax tayit taxi man yi ay jambar lañu parce que en deux euh, depuis 2016 euh, arrêté nañu licence yi mais malgré ñu ngi góorgóorlu di fexe ba seeni auto am confort di fexé ba seeni auto am sécurité té gisuñ ci kenn ko xamni ne ni jàppale nañ ci ñu bëggal nak gouvernement bi volonté bi nga xamni ni am na ko ci pour defar BRT bi am na ko ci pour defar Sénégal dem dikk volonté boobu na ko continuer ci taxi yi pour que transport taxi yi mën a am ni mu waree parce que tourisme bu ñëw Sénégal ci taxi ngay jaar yeneen quartier yi nga xam ne ni BRT mënu fa dem aussi taxi yi ñoo leen war a yóbbu donc transport boobu waruñu ko négliger te war nañ leen mën a jàppale te it bu fekkee ne dañuy dañu dañu dañu sukkandiku ci BRT rek yaakaar ni transport bi baax na mën na jur ay conséquences ci walu embouteillage bi mën na jur ay conséquences ci wàllu liggéeyu ñeneen ñi nga xamni ni yeneen mode de transport lañu yor donc motax ñuy ñaan gouvernement bi mu bayyi xel bu baaxa baaxa baax transport local bi nga xamni ni ñom ñofi nekkon doon doxal ba ba léegi waaw loolu daal bokk na ci li nga xamni ni mom moñu andi won leneen li ci desit mu jëm ci walu laisser passer yi nga xam yag nañ ko ñaxtu mu jëm ci walu taxi yi nga xamni ñoy genn bitim rew ñi ñoy genn ci ci ci région yi Euh, waxtaanal nañ ci ak directeur transport mu jëleen engagement ne dana fexe ba euh, euh, taxi yi fu ñu dem ci Dakar ñu mën a am ñu mën am laissez-passer mais gis nañu ne loolu nekk na loo xam ne lañ ci doon ragal yëpp gis nañ ko amul. parce que 80 pour cent ci commissariat yi wala brigade gendarmerie foo ci dem bëgg laissez-passer dañ naan laissez-passer amul donc kon liñ ci doon ragal yëpp am na ci ñuy ñaan nag gouvernement bi laissez-passer yooyu ñu supprimer ko. loolu daal bokk na ci yi nga xam ne nii mooy doléance yi nga xam ne nii moo taxoon na tey ñu daje fii